buñ lore te it buñ la lor te barab yi fasantikoo nañu te yitte ji rek mooy yéenal feeñal sunu yéene ci liggéeyu sëñ Tuubaa bii sëñ Moustapha wax na ko léegi nee na lii waajkaayu Kazu Rajab la muy lu am solo Kazu Rajab nag bu ci sëriñ lu feeñul woon jamono sangub sang yi sallallahu alayhi wa sallam rañaanu ci lu tee muy mu bokk ci al shahrul al mubaarak al ashhurul maymuna ndax lu tax raa googu ak jiim gi ak baage bu ci ne Sëñ Tuubaa wax na ci rajab bi mu jëlee raa gi dane raf'un taqiyun lil muttaqiina al huda bi xayri maktumin wala humul ada sëñ tubaa nee na raagi képp koo xamante ni weer wi ñëw na muy ab jullit nga dundale ko ni nga ko war a dundal nee na raf'un taqiyin lil muttaqiina nee na yëkkatigu gu fegoo ngi ci ñeel ñi nga xamante ne nii fegu nañu ci weer wi fegu nañu ci weer wi mooy jéem nañoo jéem seen kam kattan di jaamu seen borom subhanahu wa taala ci weer wi waaye sirrun munkatim lil huda anil ida nee nañ mbóot mu nëbboo ngi ci ci biir weer wi woo xam ne dana musle ci say noon waaye dana la teg ci ak jub jiim gi mu ni jaaltuka allahu bi jaahil muntaqa bi xayri man boo din taqaa huuhul ala sëñ Tuubaa nee na weer wi képp koo xamante ne nii yëg nga ni rajab ñëw na yëg nga ko nee na suñ borom subhaana mi nga xam ni dafa dindi ci loxoom la ne dana la ci defal nga nekk ab jaam boo xam ni suñ borom subhanahu wa taala weer woowu ci boppam boo ci faatoo suñ borom dina reconnaître ni yow ab jaamam nga woon baaga mu ne baan lil mustafa wa bayon lillahi lkama bi geyri maqbudin wa taqwahu lkama sëñ Tuubaa daal di waxaat na jaayante ba jaayante jeex jaayante ci weer wii rek moo mat a jaayante waaye nee na topp rasulullahi saa ba topp jeex nee na jaay ko weer wii rek moo mat a jaay kon loolu rek buñ ci yemoon doy na sëkk ci ngëneelul weer wi sangub sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñëw suñ borom subhanahu wa taala ci coobareel boppam yenkewal ko lu war a tax mu dem ci asamawaatu sabaa suñ borom subhaana déyanteeg moom bu jàngee suurtu nañ mi mu jàngal na ko wan nañ mi ida huwa ma dalla saaxibuka wa ma huwa wa ma yantiqu an al huwa in huwa illa waxyun yuxa nga xam ne du waxe ci bànneexu bakkanam mukk dem na ba naan su ma su ma danaa fata dalla fa kaana xaaba xawsayni aw àddina nee na sangub sangu yi sallallahu alayhi wa dem na ba digganteem ak boroomam xalaa xocc la waaye fa yuuxaa maa awxaa suñ boroom daal di ko fay yenkewal lam ko yenkewal bokk na ca la ca gën a fës asalawaatul xams waxuma salaatul xam moo ko taxoon a dem ci suñu borom mooy jëli julli déedéet dama ni bokk na ca la ca gën a fës mooy julli juróom léegi nag sang bii di sëriñ Fàllu moom ñépp maasa nañu xam ni mag ñépp ñu dégg ko ci ñoom mu wax ko ci baati olof yi leer ni dani lay mën a cëpp te moom sang bi ba muy dem bokk na ci li mu li ko gënoon a ñor gën caa fës ca mbóot ya mooy assalawaatul xamsa sëñ Fallou bi mu ñëwee kon assalawaatul xamsa la wàccaale ndax dangay gis ni salawaatul xams dara jiituwu ci alquraanu karim teyit alquraan jooju mboolem yonent bu fa mas a jaar alquraanu karim rek ngay dëggal moom rekk moom nga doon xàllal seeni axkaam ak seeni ma yeen daan doxe yépp dafa tegu woon ci alquraanu karim dëppook moom bi sang bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam téeréem bi di furqaan tudd furqaan furqaan dëggale teqale dëgg ak neen tudd alkitaab alkitaab ndax boole gim boole téere yi ñooña ba pare làmbuwaale lu bokkul ci téere ñooña ñu tuddee ko alkitaab alxuraan tuddee ak tanzil ndax lu tax tanzilun minallaahi tartilan dafa jóge ci suñu borom subhaanahu wa rot wàccandoo benn par benn fu sang bi toll rekk ak mbir mu man doon yàlla suñu borom wàccee foofa laaya ngir leeral kon loola bu amee Chamat Fadal Mbàkke feeñ jamono yàlla suñ borom subhanahu wa dimbali ko ci tawfiixi boppam mu bind kaamil yu bari loola kon danañu mën a tegtal ni ndekete sëñ Fallu secret bi tax mu wax ni dani lay ma ni cëpp alxuraanu karim la ci doon junju waaye jubluwu ci woon rek nit ñi ni ko est waaye tamit mu bokk ci al ashurul xurum moom rajab muy weer yi nga xamante nii daganul benn yoon ab jullit di ci tuur dereti jullitam moroomam jullitam nga xam ne dañ ko ci xaraamal nga xam ne xeex yi mustafa sang bi sallallahu alayhi wa daan xeex suñ borom subhanahu taala daf ko ci daan wattandikuloo ñeenti weer waaye bokk na ca ar rajabul fardi kon yooya danañu mën a tegtal ni weer wi lu sell la waaye li ci gën a rëy wax naa leen ko léegi mooy alquranu karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani fa man taqarawhu yawman min al hadihi al ka annahu qad ola fawqa alkumali yonent saa salaam nee na képp koo xam ne jàng nga ci benn laaya ci weer wi nee na suñu borom subhanahu wa taala dana ko nangu mu mel ni danga gën a ba egg ca way mat ya kon dalay tegtal ni la ndekete kon weer wi jàng ci alquranu karim lu ñu naw la yontu sallallahu alayhi wa ñu jële ci ibnu mas'ud mu ne wa man taqara hazi shahr wa tawaqqa huna laa budda an yumkinu fi yawm alqiyaamati qiyaaman shafian yon saa sallam nee na képp koo xam ni weer wi ñëw na nga yëg ni weer wi ñëw na lu dul ni ëllëg yawm alqiyaamati akbar suñ borom subhanahu wa taala dana la ramm fa ramm soxla fa nga ko soxla kon yooyu yëpp bu ko boolee ñu dem ba kazun ci rajab tombanteeg ñaar fukki fan ak juróom-ñaar alxuraanu karim bañ ba àddu ci ni si asre loolu dana la tegtal ne la li tax alxuraanu karim njëkkee subhaana ngir lan tudd ci selluk suñ borom gi subhaanahu wa taala selluk suñ borom googu mu tudd dafa am lu muy firndeel mooy bu ñu naagu ci mukk ci yërmande suñ borom subhaanahu wa taala jullit bi war naa baax baax ba njoxtu ni bés mën naa ñëw ki gën a yées gën ko loolu bu amee dootul sañ mukk yëkkati xolam walla xelam walla jëmmam walla darajaam ci kaw moroomam ndax njortu na ni kii muy tudd di tudd ci moom safaan ba wala mu koy wala mu fanaane jàng alxuraan walla mu mokkal alxuraan wala mu bari xam-xam taseeg koo xam ni mën naa am ferul ijji sax sax xel wara a njott ni yaa ko gën ci lenn ngir yàlla li la suñ borom yenkeewal ci tuuteem nee na jamono ji nga ko njortee rek wàcc nga yow ci saasi sarsi lislaam ya mahabatul am ku ne xam na ni ahlu tasawuf dañ koy wax sëñ lu léppam sufiyanke la woon ndax lu tax la mu dégg alquranu karim wax ko wa ma umiru illa li yabudullah digal leen lu ma leen dara lu dul jaamu suñ borom subhanahu wa taala almuxlasin lahu diina ndax sellal gi koy sellal alquran nee na loolu mooy diine sëñ Tuubaa bu delloo ci téere bi gën a bi mu njëkk a bind mu koy tuddee tasawudu ci xaar dafa wax ni yaqulu man laysa yazaalu yaxmadu maalikahul abdul xadim ahmadu bayit boobu boo ko seetloo dangay gis ni dalaa wax moom ni mu tudd ni ko woy juróom tudde woon muy Ahmadou bàmba la ko bàyyam la ko woy juróom tudde woon waaye mu mu topp rasulullahi sallallahu alayhi topp rasulullahi sallallahu alayhi ba am ca ab karaama maqaama garaat bu tudd xaddiim mu rotal ko ci biir xasida gi ne ci diggante yàlla suñu borom subhaana ak rasulullahi di jaamu suñu borom ba am ci benn garaat garaat ba mooy al abdu mu waxaale la ci biir bayit boobu ni mu tudd wax la ci ñaari daraja ji mu làmboo muy daraja ci suñ borom te mooy al abdu te suñ borom subhaana ku mas a gërëm abdu la lay tuddee ndax dégg ngeen léegi ma leen subhaana lazi asra bi abdihi kon rasulullahi suñ borom subhaana bala mu ko mën a saña yéegee ci kaw daf ko dafa dem ba am maqaamam abdu ba suñ borom reconnaître ni moom ab jaam la nekk mu doog a mën a am maqaamam yéeg ci kaw wuy ji suñ borom maam ba muy yéeg maqaamam abdu la yéegee moo tax suñ tubaa xaadim rasul ba mu la koy nettali mun la moom kat bil jismi jahra bi laftiraa yi suñ tubaa nee na ci ci ci yaramu leer la deme yaram wu leer la demee nee na tuuma amu ci sikki sàkk amu ci ñu ne ko nu mu demee mu ne xadd baata yasri min baadi tuhri ñu ne ko lum mu yóbbaale woon mu ne xanaa muddima bishri mu ni ko ñum dajal mu ni fil anbiya hakaza huwa léegi nag luy firndeel loola la mu tàmbalee ca xasida ga yan mu luhaa yi bismillaahi yan mu dana yëkkati dana yëkkatikoo ñu ni ko lan mooy yëkkatiku mu ni luhaa yi samay may man sëñ Tuubaa ci naka lay yëkkatiku mu ni xanaa bismillaahi ci lu may def tàmbalee ci bismillaahi bilaa ma naahi nee na loolu amul dayo dayo bu mu toll maanaam cib rëyaay wala ntihaay amul yamukaay amul rëyaay buñ ko mën a natte amul yamukaay buñ ko mën a jéggee nga xam ni lu mu rëy rëy lu sa bët rëy ëpp na ko bu dee da ngay dem maanaam doo doo ko jot mukk nee na noonu la rasulullahi saa sallam demee ci suñu borom xadd baata yasri joojee la koy firndeel la koy firi mooy bismillaahi jëm tàmbalee loolu la bu fekkee ne liñ jàng si balaa na ko waaye dangay gis ni diggante boobu Cheikh Fadal Mbàkke daf caa def lu yéeme lu ñoo xam ne mën nañoo xam ne nattukaay yi diine yi yiñ mën a natte nit ku baax muy ilmun wa islaamun kada fiqhun tasawufun bi xurbillaahi xurbaana wa kada huwa alxanniyu fi luxra bihim abadan bu'dun karimun wa dulmaau an xidamin loolu la Sëñ Tuubaa wax nee na nattukaay yooyu la ñuy natte nit ku baax muy fukk te huwa la war a dem huwa la war a jàpp mooy onze ñu ne ko kon indil benn bi mu ne xanaa abdun karimun fi makaarimil axlaaqi bada fi l bu'di wal qurbi man qad kamada sëñ Tuubaa nee na fukki mbir la bi ci njëkk mooy lislaam ji woo kong ngay am te sëñ Fallu xame woon nañ ko ak lislaam ji woo kong yoo xam ne kum masata seel bala mu laa wax dara waaru nga ci moom ci aw melokaanam ba ca des mooy ak baax te sëñ Fallu ak baax ci moom la dëppee xam nga ne baax mënta weesu yéene ab jullit aljanna ba yéene ba yéene ko ab yéefar loolu lu rëy rëy la nga xam ni ci ni ko mag ñiy nettalee te man xise yooyu duma ciy bëgg di tàbbi ndax gisuma ko fenn ñu bind ko ci téere ni sañ Fallu moo xooloon néew ni day dem àjjana ñu ni ko mbàkki kee maanaam du du kii du néewub jullit mu ni leen aljana suñu borooma ko moom bu leen ko ko soxare waaye lay xekk ma ba ñu war ko caa gëme lay xekk ma ba ñu war ko caa gëme ndax réew mi léegi loo wax ñun la indil dalilul quran wala xadis hakaza huwa ndax loola ay wax la yoo xam ni nit mën na koo jël dagg ko daal ni xoolal kii wax ju rëy jum wax te amaana kooka di wane woone soppeeb sëñ fallu la te fekk na lam ca jublu mooy daaneel sëñ fallu bu ko neexee sax mu indi bayitub sëñ Tuubaa boo xamante nii da ko wax ci beneen xaal ndax sëñ Tuubaa ñi nekkoon ci tasawuf bu daan wax ak ñoom dafa am xaal bu mu daan waxee bu dee ci sharia mu am xaal bu muy waxee bu dee digganteem ak borom mu am xaal bu muy waxee ndax xam nga ne li mu wax ni anta suluki ilal maliki maxil ufuki mutinaqa dani jàng rasulullah sallam ni ko ci yow laa soobu waaye jëm ma ci yow mu ni ko foo jëm mu ni ko ci suñ borom laa jëm anta suluki ci yow laa soobu wante nag ilal maliki ci suñ borom laa jëm loolu xaal la ndax jéggi gi mu jéggi rasulullahi boo ko ci déggee dangay gis ni loola ci maqaamum tasawuf la bokk te tamkiin lay taxawe waaye tamkiin jooju nag mooy yóbbaale taxqiiq yi gi mu am maanaam dëgg gi mu am ci rasulullahi sallallahu alayhi wa ndax dégg nga mu ni ko maxi ufuki mu'tinaqaay ki ki may faral ay tuuma te may may ay xéewal te mooy suñu borom subhanahu wa faral gi ma faral tuuba mooy indi gi ma indil rasulullahi ci mu may tere di ma digal mu may may ay xéwal mooy gim indil gi ma indil rasulullahi sallallahu ngir mu may wax yoon yu may jaar hakaza huwa kon maxi ufuki mu ate naqaa yi ja ca ngay dégg kon lépp da koo dellowaat ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu danañu man a tegtal ni ci diggante boobu la Cheikh ma Fadal nekkoon ba ca topp mooy saalixun karimun ndax waxoon na la saalix rek waaye boolewu ci woon karimun léegi nag mu ne la saalix waaye karim nit ki jëmm ji yiwe waaye karim mooy baax ci biir baax ci biti sëñ Fallu nag baax ci biir baax ci biti mooy ay bor walla feebar lim ko daan fajal nit dafa bari lool te loolu moom mën nañ cee teg baaram ni moo ko bind ndax dara jiituwu ci famin mustakin faqran wa min mustakin ballan wa min mustakin daynan wa zaminum wa ahra mu ni ko suñ borom ñi nga xam ne dañoo ñàkk yàlla na leen saafaraal seen ñàkk gën ñàkk xanaa loolu waxi sëñ waxi sëñ fàllu jooju suñ borom nangu na ko bu baax ndax fa mu fa ñu wax fa mag ñu waxoon ni fa la fekk réew mi mooy rakkal ak beleel léegi nag dem na tey ba kum neex mën nga xëcc wilaaye wu la neex te teg ci mbubb mu rafet wilaaye wu la neex mën nga koo xëcc te teg ko ci mbubb mu rafet waaye liy dëgg tey dëgg mooy képp koo xam ne naboo sa naboo sa bopp no namoo sa bopp ci ñime der guddi walla nga ñimee tudd yàlla lu nekk seytaane mën na la ko xëy def loo mosoo gis benn doomu sëñ ñu gën a xejj ci suñu borom ñuy nelaw guddi ab jaam bu bëggee dara ci suñu borom faw muy fekk guddi yi sëñ noonu la ko nettalee man talabal ola ñu ne ko xam mu ni saharal la yàlla ci nahjul xada hajj ku bëggu kawe nooy def mu ne xanaa fekk guddi yi te loolu sëriñ Tuubaa daf ñoo nàmm ci saxaaba yi ñun murid yi seen bàyyi ci diine mooy saxaabatul kiram kon fawu ab jullit bu bëggee lu baax fawu muy nàmm boppam guddi di di ko jaamu yàlla genn jaamu yàlla gu mu tegoo boppam waaye bu fekkee ni man dama bëgg a gént gis sëñ Saaliwu nelaw ba doyal sa bu ma ko géntee gis ko ba pare wëlbati ko di ko wax gaaw a wax gam koy gaaw a wax moo lay xamal ne du taxqiqiyan te léegi seytaane dafay am lu mu dugal ci bopp nit ñi li mu dugal ci bopp nit ñi mooy ñooñu seytaane du leen nuru seytaane ka bari doole sëñ Tuubaa nee na yaxulu baynal mar'i wa dammihi wala yash'urun day dox ci diggante nit ak deretam waaye du ko yëg seytaane dafa am doole am kattan am doole am kattan xam nga ni moo tax in mu mu nërmel bala am ibnu baawuda koo xam ne bu daan waaraate junniy nit a ko daan déglu junniy nit ak kel saa bu waxee ñuy jël not te suñ borom mujj na ko alak ndax seytaane moo dox ci diggante yàpp deretam bersis nag seenub safaan mooy Ibrahima ibnu Adham ñeent fukki at la am yoo xam ni ci lu ko neex la ne te tey boo demee ci xóorutul ay ni liir ko da nga ca fekkaale sëriñ Chouaib bu Mbàkke ni la néew bu faatu sëriñ Chouaib bu Mbàkke xóorutul ay ni ku ko am boo demee nga liir ko suba néew bu faatu ku am bind ca kaw bàmmeel ba Ibrahima ibnu Adham ñu jéggal ko ndax suñu borom rus gum ko rus loolu ñëpp ku am xóorutul ay ni olof lañ ko liir di ko gis sëriñ Chouaib bu Mbàkke moom suñ tubaa ko wax léegi nag lan moo ko may maqaama boobu rabiatul adawi ar rabiatu al adawi te sëñ Tuubaa tudd ko ci tudd ko ci tuhfatul mutadrain wa bi rabiin wa bi jaahil aswati te jigéen la woon muy taasu ci barkeem wa bi rabiin wa bi jaahil aswad muy taasu ci barkeem rabiatul adawi rabiatul adawi ab ab soxna la woon boo xam ne baayam imaam la woon mu dem am koo xamante nii moom da koo bëgg ndax bëgg ci xol lay ne toppul nit ku baax ak nit ku bon fi mu toll nii maanaam ak bëgg bu ko yàlla defee ci yow wala ndimbal ku ne mën nga koo bëgg ku ne mën nga koo bëgg moo xam nit ku safaan ba la wala keneen la amaana sax nit ku safaan ba mooy gën a bari ñu ko bëgg ci nit ki nga xamante nii ci yàlla la ne ndax ak bëgg yàlla tegu ko ci ni kii borom wilaaya la wala kii borom leneen la moom de benn étincelle la boo xam ne da koy xëpp ci sa ci sa xol rek nga bëgg xakk sa huwa moom mu bëgg benn góor mu bokk ci bànn Suleymaan bànn Suleymu ñu koy wax Omar al Adawi ay bokk lañu ñu woon ndax Rabaat al Adawi bu ngeen ko dégg Adawi boobu xeet la xakk sa waaye mu zaayire woon lool ba mu demee wax ko waajuram dani ko ñeent fukki ñeent fukki fajar bu ñëwee ci jàkka yi ñeent fukki fajar yoo xam ne ratewu ko saa bu ma ne asalaamaaleykum gis ko ci sama ginnaaw danaa la ko may mu dem wax ko ko mu ni ko yeneen waxtu yi nag mu ni ko yeneen waxtu yi sax bu ko julliwul baax na moom daal ñeent fukki fajar ko tegleel loolu mooy can gi ngir nga xamal la yàlla fu muy def nit bi ñeent fukki fajar yi jotee rabiatu al fukki fukki fajar ak juróom omar moomu al adawi moomu dañu ko man soxlaatuma la ndax sa yitte ci jaamu yàlla dafa suufe lool wax ko rabia nga xam ni bëggatul ci zahir dara kon loolu safaanub safaanub ñaar ñale la fi nga xam ni fi lañuy ñuy tëje nag te joxe kàddu gi mooy ndax fukk yi ñu waxoon yépp muy xuwa yi duñ ko mën a matal ndax guddi guddi ci xaj la ca des te kenn mënu koo tëb ci sëñ Fallu mooy la yonent saa salaam waxoon ni innama bu'asta li u tàmmima makarimal axlaax yàlla suñu borom subhaana dafa ma yónni ngir ma mottali jikko yu sell yi mottali gi mu mottali jikko yu sell yi te buñ ñu tuddee makarimal axlaax suñu xel dem ci leerug sëñ Fallu muy sëñ Abdou Karim te moonta ñépp jullit bu nekk lii sa yitte mooy dund makaarimal axlaax léegi lu tax buñ ko tuddee suñu xel dem ci leeru sëñ Tuubaa lu tax loolu muy xekkamatul ilaahi te moom am na kuñ ko tuddee muy Abdul Karim doomu sëñ Fallou lañ ko tuddee te kooku buñ ko tuddee suñu xel dem ci moom waaye saa buñ ne Abdul Karim rek mii la ñuy dem te ma makaarimal axlaax la suñu xel di dem muy tedd ngay jikko yi léegi lu tax mu dajee ci kër sëñ Fallou ba noppi lu tax sëñ Fallou nii ndindi fa la mbir ma nekk kon màggali tubaa ndekete baax na lool waaye sëñ lu moom ndindi ci boppam ndindi la wax ni ku fa dem ni jàng fekk ma fa ma faj sa aajo kon ndekete nit mën naa nekk ndindi ku dul sëñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarim laax ñaan ci daraje sëñ Fallu suñu borom faj ko allahu ndax yaakaar ji sëñ Fallu waxoon yëpp da daje moo tax mu am zahir am baatin moom sëñ Fallu nekkoon nit ko doy waar koo xamante ne nii ku masaana jamonanteel ku nekk nga ko amul liggéeyu sëñ tubaa bu mu taw tabbalul loxoom lépp mu teg ko ci makaaram axlaaq teg ko ci tedd ngay jikko kon nag la rek sëñ Tuubaa bu soxlaa boromam dafay dem waaye man sëñ Fallu su ma soxlaa sama borom fii laay toog mu fekk ma fi te fa muy toog mu fekk ko fi lu mu ci jubloon du dara lu dul sëñ Tuubaa rek la si jublu